dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ni <clears throat> ba mu koy sanc booba tubaab yaa ngi fi sanc ko ndax lislaam moo taxoon mu sanc ko am yu mu fi bañ am yu mu fi bëgg dëkk bi nag day dëkkub yërmande boo xam bi ni sëñ bi ñëpp la fi woo waaye ci ko woote bi mu fi woo ñëpp nag da ko woote ci siraatal mustaqim waaye nuy dem ba gis ni dëkk bi mu ngi bëgg a mel ni yeneen i dëkk te yëmut ak yeneen i dëkk ku yaakaar Cheikh Ibra ku ne na nga xam ne am na liggéey boo xam ne bi ni sëñ bi joxe na ko ci Touba ci dëkk bi la ca jëkk nag mooy gaar bee nga xam ne fu fu fi waay mën a ne ci dëkk bi ak Sénégal ak bitim réew dégg nga xew-xew ya fay xew te loolu yëlloowul ak tuubaa loole nag la sëriñ bi bëgg nu jëlee ko fa ak yeneen yi demee noonu te nekk ci quartier yi nekk ci biir Touba te mel ni gaar ba ci ay ay ay ay mbir daal di fa jëfandikoo yoo xam ni sëriñ bi soxla ko liggéey bi nag yemul rek ci gaar bu ndaw ndax dañoo euh, ci gaar bi dañoo bëgg bu noppee bu nu noppee ci loolu feneen fu ñu la joxoon joxoñ itam nu jublu foofa fas yéene la fa sëriñ bi bëgg na mu ko bëggee nu defee ko nii jàmm rek lañ lañ fa soxla nag soxla wuñ ci lu dul jàmm bu bu bu mbooloo mi dajee daal fu sëriñ bi joxoñ ni nii la ko bëggee nan ko defee noonu sëriñ bi nag dafa waxoon ni bëggul ko gaañ kenn bëggul ko dóor kenn bëggul ko xaawi sutura loolu mu loolu mu bëggit noonu noonu lan fas yéene defale ko ko nii waaye li nu li mu bëgg ci dëkk bi daal fas nañ yéene ni mu ko bëggee nu defe ko nii ñi nga xam ne bii ni dañu faa ne nag te nga xam ne dañ faa yori bagage te bokk ci dëkk bi sëriñ bi nee na nañu teel a fagaru génne seen i bagage ndax may nañ leen euh, euh, diggante boo xam ne bii ni wax dëgg yàlla tuxal say say say bagage yóbbu ko fi barab xaj na fi ndax fii ajjuma àjjuma lu ne xaj na fi ku ko ku ko bëgg di di ndax ñii ñëw nag bu ñu dikkee ndigal dong la ñuy jëfandikoo ñoom jëfandikoo ñu dégluwuñu keneen baatub sëriñ bi la ñuy déglu te ndam ko bëggee noonu lañ ko fa séenee defee kon yéen ñi nga xam ne da ngeen faane te yori bagage teel leen a fogoru may nu bu nu ñëwee ngeen yombalal nu li ñuy def mu bañ am benn benn eh, jiix jaaxa lorunu kenn nag xeexunu xulóowunu la ñuy def daal mooy jëfi ndigalul sëriñ bi koo xam ne kii nag at ànd nga ci jëfandikoo sëriñ bi da yaakaar naa doo am ak noonu jooyoo ko am sa sa koo xam ne kii nag yow danga nga yor sa xalaati bopp ak sa melokaanu bopp ah loolu booy war nga abal nga xam ni nun moom jëfan jëfe ndigal rek moom lañ ñu sant te moom la ñuy def ndax moom lañ fi fekk te fas nañ yéene ci la ñuy ne ban fi bàyyi ko murit yi xam nañ ni seen bëgg-bëgg mooy jëfe ndigalu sëriñ bi rek te xër nañ ci xër goo xam ne mën na noo dem ba am nu raaxaloo si seen biir wala nu àgg si loo xam ne defe ko noo xam ne bokkul ak na ko sëriñ bi diglee te ndigal moom dana wax ne caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi kon danoo bëgg murid yi suñu xëysee ajuma ak jàmm foofii camion yooyu suuf yi di taxaw murid yëpp mën na noo maase daje fa suñu fa dajee bu kenn yëkkati dara nanu xaar jëwriñ ji sëriñ bi tànn ba mu ñëw won leen li ko sëriñ bi liggéeyloo su tànnee ay jëwriñ ànd ak ñoom dem nu wër ba mu won ko li leen li sëñ bi bëgg su dellu see nag joxe ndigal nag muy coup d'envoi bi nag ñu soog a song liggéey ba nag daal say nekk ba ba muy àgg waaye bu kenn xëy yor sa martu mbaa nga yor sa oto dem xëy tàmbaleel sa bopp te sëriñ bi won ndax sëriñ bi dafa am lu mu joxoñ loo xam ni loola la bëgg mu dañ loolee nag luñ sa yokk jéggi nañ ndigal li luñ sa wàññeet wàññi nañ ndigal li te ab taalibe moomut loolu kon ku xëy si na xam ne na teew foofee sa camion ya bu fa murit yëpp dajee danañ fa fekk sëriñ bi jëwriñ ji nga xam ne moom la sëñ bi tànn dina leen won fi ñuy tàmbalee ak fi nuy yem liggéey la bu yaatu nag boo xam ne bii du benn fan du ñaari fan kon kuy ñëwit na nga fanoo loolu te ñu bare ngi woote di laaj ndax fa ñu ne si la bokkam bokku si waaye sëriñ Muntaxa daal li mu wax mooy 120 mètres boobu yi nga xam ne moo déparé foofu fii fi camion suuf yi taxaw tey jubal mel na lu jëm gànnaar dem ba sa biir marché ba muy magasin ya ak place ya jàll ba sa maal ba bëtt maal ba jàll dem ba sar ba génn marché bi loolu lépp ku fa am mbaar wala place wala magasin wala bitig xamal ni wala kër xamal ni loolee sëriñ bi jox na ndigal ñu dindi ko murit nag ndigal rek lay déglu